chers journalistes, euh, je profiterai de l'occasion pour à nouveau apporter une petite correction par rapport à ce qui juge les gens sans avoir l'information euh, correcte. Ceux qui prétendaient que nous fuyions euh, la presse, ils se trompent lourdement. Nous sommes avec vous, nous sommes des frères. Quand il s'agit de communiquer, nous ne pouvons pas nous dérober à ça en tant que politiciens. Mais cependant, mon leader est le plus grand communicateur que, pour lequel euh, vous devez vous contenter très souvent que euh, de vouloir solliciter nous autres. Cependant, je reviens à, à l'essentiel. Nous avons été candidats. Notre leader, Maître El Diouf, a à à cette de la présidentielle du mois de février 2024. Nous nous félicitons de, de notre travail. surtout le travail de El Hadj qui a sillonné tout le Sénégal pour chercher des parrains. Et au finish, nous ne le regrettons pas et nous remercions énormément ces Sénégalais qui nous ont approchés pour nous apporter Vous êtes pas leur, leur parrainage. Un peu de patience, monsieur. Si vous êtes pressé, vous pouvez éteindre votre, votre téléphone et partir ou, votre micro. Euh, non, il a aucun problème, euh, <laughs> madame. très, bien. Bon. Donc, euh, au bout du parrainage, nous, ne, continuerons pas l'aventure, bien sûr, comme certains. Mhm. car nous nous sommes retrouvés avec 43 305 parrains validés, soit un déficit d'environ 700 parrains pour atteindre le minimum requis pour être candidat. Mais nous n'avons rien à regretter, nous avons travaillé et nous avons été sérieux dans ce que nous euh, le système de doublons euh, nous de la course, Nous l'acceptons parce que ça a été un jeu euh, auquel nous avons adhéré au départ. Nous n'avions pas, nous n'avions pas réfuté ça. Et donc, euh, restons sérieux et arrêtons, euh, quand ça ne nous arrange pas, de vouloir euh, polémiquer autour de la question. Ça, nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous faites allusion au fichier ouais. Vous faites allusion au fichier Non, euh, en, tout cas, en tout cas, tout le système qui est mis en place, nous l'avions accepté pour venir euh, à ces présidentielles-là. Donc ce n'est pas le moment aujourd'hui euh, de regretter ça ou de réfuter ça. Je pense très bien que s'il y a quelque chose à réclamer, à dire, nous pouvons le faire après les élections, après le 25 février prochain, Et vous que pour pouvoir préparer les prochaines élections dans cinq ans voilà. Euh, bon ngeen baal ma nag ci olof bi euh, dëgg-dëgg. Euh, sama sama wax dina sama sama sama wax dina gàtt. je me limiterai juste sant sant yi sénégalais yi ànd ak ñun. yi ànd ak maître El Hadji Diouf bëggoon ko euh, ci boppum réew mi euh, yàlla moo mooy dogal moo ko bëggee nii mais liggéey ngeen ñun tamit liggéey nañ euh, ñu ngi gërëm suñ bopp résultat yi ça nous réconforte du ñu doon nag candidat ci présidentiel yi mais suñu liggéey doy nañu parce que El Hadj Moustapha Diouf dugun na fu nekk fii Sénégal pour yëgle que moom ab candidat la et que euh, yéen tamit da ko may confiance jàppale ko jox ko seen parrainage euh, dommage euh, ni parrainage bi demee donc euh, bu bu ñu amee ay doublons au départ lañ ko waroon euh, jooyantu mais du tey lañ ko war a jooyantu pour man. Mhm. en tout cas euh, donc fi mu toll nii ci quarante quatre mille deux cent trente et un parrains à valider nous nu nous nous nous nous sommes avec quarante trois mille. 505 parrains validés. Donc, euh, ce qui fait que nous avons juste un déficit de 7... Euh, ce qui fait que euh, li li ñu manqué li ñu manqué lee li ñu manqué lee euh, li ñu dese pour ñu mënoon a jàll euh, bon 700 nag je ne pourrais pas le dire en wolof bon 700 cent parrain la voilà donc. fàttali ñu tur bi man maa ngi tudd Élie Jean Gabriel mallo voilà euh, au départ au départ au premier contrôle nous avions 8531 doublons externes zéro doublon interne euh, à la correction euh, disons au deuxième contrôle euh, monsieur a posé la question en français Euh, au deuxième contrôle, nous nous sommes retrouvés à zéro doublon interne également et euh, à 4221 doublons externes. Ce qui, fait, ce qui fait un total de 13 452 doublons. ci wolof dafa mel ni ŋaañoo parrainage bi. Euh, non man parrainage bi du ko ŋaañ nangu naa ko ba dugg. un euh, ci jeu bi. Ah. du tey laa koy ŋaññ ba mu koy ŋaññ ma ŋañoon ko euh, ca njëlbeen. balaa ñoo tàmmali. defuma ko woon euh, bu may ba koy ŋaññ. daa fekk ma jàngaat ko jàng bu baax. Hmm. am xam lu ma ci mën a wax. bu boobaa day fekk élection bi ñu weesu ko. voilà buñ ko weesoo bu boobaa mën naa am lu may wax pour ñu mën a. Euh, tabax li gën pour élection yi ñëw en deux mille vingt neuf. voilà. jaajëfal ko bu baax a baax euh, moom euh, monsieur Malo. nekk mandataire ki la di maître El Hadj Ousseynou Diouf kon ñoom nag ñu daal di leen mujj rëkkale ci li nga xam ni moom mooy ci état bu parrainage yi kon mi ngi noonu. ki nga xam ni nag moo nekk mandataire ki lee di euh, Rose Wardini ñoom euh, jàll nañu li nga xam ne moom moo di euh, état bu bi Touré. gis na ni li mu waxoon démb sax daanaka dafa mel ni ci foofu la taxaw ba tey. par rapport ak may gars seen champs <laughs> caméra gars caméraman yi. allez-y waaw man ne xanaa ñu euh, dafa mel ni li mu waxoon dëmb rek ci la taxaw par rapport ak li nga xam ne mooy fichier électoral bi moom waxoon na benn yoon euh, du ñu ŋàññ li nga xam ne moo jëm ci fichier électoral mhm. euh, waaye jàpp na ni jeu la bi nga xam ne ñoom ñëpp d'accordoon dugg ci balaa résultat yi di commencé génn mënuñu ñëw ba toll fi nga xam ne moom mooy résultat yi war a génn ci conseil constitutionnel nga jàpp ni li nga xam ne jël nañu temps balaa ñuy ñëw wax ak ñi nga xam ne. waaw tiit moo leen euh, moom doy. ndax euh, ki nga xam ne moom mooy mandataire bi euh, mandataire Rose Wardini tam daanaka moom bi mu génnee juste dafa jublu ñu nga xam ne ñoom ñooy taskati xibaar yi. mais nag mais nag mandataire Me El Hadji Diouf bi lañ ko xooloon la fois ni ko da